oto laa taal ànd sama soxna mm. fii muy sama kër man kër gi man maa ko moom kër yaa ko moom sama soxna yii yaay seen seen sa soxna man li may seen ñun ñàkk xam rek li mu ñàkk ma gis yëpp sama course bi maa ko moom la ma siy baatar ak la ma siy ñaan maa ko xam ndax tëgg sabar nga xam ni tëgg sabar rek laa man dëkk ba rek ma dem fa ànd ak du njaay roos sama baay ma dem ba sëriñ Babacar si teggee ma sabar yi jox ma fop lu gën sabar yi ak al amin ba tey ma tànta yorante bi sama gëma woon lu ma gëm koo yaakaar nañ du ma esti yaa am yar man dem naa sa yorante bi oto yi ma yor sëñ ma tax nu jox ma ko kon maa ngi sant comme ñëpp dama indaale la masol lu gën li fop lu ma ko indaale woon nga jox ma ma ndax noo leen bokk añ ma tax tey maa war a yaatal ku ma doon dóor kurpeñ sax danaa ko jégg ndax yow ndax sama soxna si rek dafa mat soxna yi comme la nga gërëmee léegi mooy foofu laa jëm mais yaa am yar fii ku fi ñëw rek lekk taxul naan taxul mais da am yar bu la neexoon ne am naa li ma am soo ma neexee réew mais ma sa man ma man man ma sax ne jàkk nii di la xool man ma ko ndax cër bu ma jox lii rek wane na ko léegi lii wane na ko léegi sama soxna waaye kii contrôle ma ko lu mu def kontaan naa trop si li nga def dama ne kontaan naa si li mu def man de xaw ma ku la fat ku la fat la ma nga xam sama njëriñ ya sama baax na am nga sama jeeg ku la fat jàll jàll sama caaman li la fat am nga man caaman caaman li la fat Karagiye ko na samba alu ndobe asko ko ma ko ko ale ko ko ay sa ko ay wan mo ko kina moy sa ko liye sa ko jere ne sarbi non ma ko ko tan ma ni ko ma ni ko na ni man da may dem may ay li bi tay may ko le ni ko do yo may dem ni ma ka salam muhammad sayyid

Bamba Sëriñ Saliou Mbacké jara yaakaar Sëriñ Bamba salli ala Muhammad Seydina Muhammad Mustafa Sëriñ Saliou Mbacké jara yaakaar

après nga tuddee yàlla ah d'accord merci yaay. ok. dañuy def avant bu. ah dañuy waajal bis bi. caméra mu ngi noonu Thank you, man. مسؤول عن الوزن مجيب مجاب المرور فلا مالك وما إلى القرب والجمال مدينة المرور فلا مالك

man بلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وجيلنا سوات دين فاتحة وتكفنا إن الله وبيننا وفي مال الأولاد يا خير الجبار وجملة السخار أنت الباري وهب لنا سرية تديم ألم لا سلم يا خديم وكفنا وحوينا وكلنا ماني تبارك الله ما شاء الله كل يا فتى كل يا مسار كل يا باسل رام رسول الله bëgg borom këram sagal borom këram suturaal borom këram yéen ngoone Massamba la tukaab ngoone Massamba mbokk si maaleykum ma joxe maa ma faale aram ba si taal sama am ab tëx la balaa dégg téeméer bi bi tàkk téeméer bi bi tomb géer bi ci ak géer gi ci ndaal <laughs> moo ci way li samba samaam Amadou Seneba lan ko tuddoon Amadou Seneba man boole ñu jël géer ngoone ma samba bàyyi ma nga ndaal faal ngoone ma samba bàyyi ma nga ndaal lëtsukaa maam amuñu sëg am nañu biir. Sa TV. mais li nga chaîne bi fa lay liggéey di ko dikkee benn problème la nga xam ne ama moo di sañ si ay préparation bayu màggal nga daan def nii. tey li nga def waaw waajal màggal gi rek tey na ngeen baal mbaat dafa dee dama xaw a sot tuuti baat bi dee waaw dañuy waajal màggal gi rek comme que suba la màggal dañuy def lu yem rek ba suba ñu door a def. d'accord tey nga daan génn ci sa waaw bëgg bëggal nit ñi rek bu programme amee nit ñi xaar il faut nga di leen bëggal waaw loolu rek la. waaw bëgg nit ñi kontaan rek. lu jarul xam nga ku xamul da nga koy Salaam Dóor. <laughs> alors gis nañ sa jëkkër sànq moom ngi lay tagg tagg yu am solo wax na sax damay promettre nii sax ne suba da ngay gis loo xam ne lu doy waar la même mun nga sa takk lii di jamaa est ce nga ko. waaw li ngeen wax rek dëgg la ndax moo ko ji li wax naa ko takk rek naa ko takk parce que moo demoon jënd ko. ci sa borom kër lépp li nga xamante ne mu ngi koy wax euh, si jëmmal si sa si sa jëmm ji tey ji da koy dëggal ba pare di def li nga xamante ne moom la la sant. ki nga xamante ne mooy sa borom kër saa su nekk rek day jig yëkkati ay kàddu jëmale ko si yow mais nit ñi bu ñuy ŋàññi moom danaan tey jii la waale gën a aay. waaw dëgg la parce que liñ nekk dañ ko ñeme fi ñu jëm xam nañ ko ñeme ko te duñu geestu waaw loolu rek la waaw moo tax lu gën di wax mooy gën di def parce que li ma ne dama ko sentir nag te kenn du def loo sentir maa ngi gis njëriñ parce que chaque année yàlla may yokk ma di ko sant di ko gërëmee waaw. ñu gisoon daaw da nga di innover innovation bi mooy que ni da nga ñëw daal di indi masque en or daal di def cravage def ceinture def maanaam lépp rek li nga xam ne moom moo di accessoire bu nit euh, mën a soxla lépp mu nekk en a ren lan ngay waajal li nga xam ne moo di fan sa ngoy fan. alors surprise la da ngeen bàyyi ba suba rek. waaw lépp moom mi ngi toog allah. daaw ñaata la defoon 23 ren ñaata la. <laughs> ren toog la surprise chaque fois dañuy gis boo tuddee kii di Marème Faye Sall première dame ngay wax sa référence la mais chaque màggal wala gàmmu ko gis est-ce que ren jii mën ko xaar. non Marème Faye Sall première dame la ku muy ñëwoon sax dangay ñëwoon avant mais mosu leen gis Marème Faye Sall muy déplacé dem ci ay màggal ak ay gàmmu yi c'est ça mm-hmm. ah. kon pour mu ñëw màggal. mais Touba ñëpp ay nitam la ñu Marème Faye mooy première dame Sénégal ñëpp ay nitam la ñu bu doon dugg Touba ñi ko fi tax a ñëw dina bari. lii ñaar seen relation lan la. man sama jarbaatu jëkkër la baax loolu nag dama defal teraanga di ko defal sama jëkkër. waaw loolu mooy suñu relation. ñu gis ne daaw bernde yi Fosani Mbattu mu daal di takk gis nañu dibi gis nañu euh, lépp luy xeetu lekk rek daaw gis nañ ko fi ren lan ngay waajal jaam yeeg say fan ak say xarit ak say doomu ndey. affaire yaa li ci bitti jëloon nañ ma ko waaye parce que romb nañ yaa ngi commencé. dibi wala <laughs> ah, na. su ma xëyee ñëw di gis yëpp. ah surprise mu Adja Ngoye nag nga ñamal tuuti surprise bi fan si ndax suba ñëpp mën a bàyyi ñëpp ñu daal di ñëw xëy na nag ci màggal gi. surprise la surprise la. est jamaa bu gars wa di wax. mais jamaa daal jamaa surprise parce que takk naa ko ah. ci biir loolu ñu doon gis tamit ki nga xam ne sa njaboot la dafa daf la jege trop daf la jege trop muy sa doom bu jigéen di euh, soxna May tey gisuñu ko lu waral li ni loolu sama vie privée la. d' accord mm. d' accord mm. d' accord donc dañ lay jaajëfal rek. ama ah, ama waxtaan ak euh, waaw bu boo leen amatee yeneen question. Mm. wax ci taxaw bi ñu koy moom moom am rek day toog mais am na jox dugal moo tax sax ci témoignage yooyu bëggoon nañ nga fekkee ba nga préparé wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxnaam yi ni ñu ko doon taxawoo nee na moom ci taxawaay boobu ci la nekk ba bu ñu lay sëñ boo amul kàddu waaw moom suma ma santee benn ma dama ko war sant téeméer parce que suñu askan baax na gore na am na valeur bëgg na ma yéene na ma bëgg sama njaboot di sonn ci man man xëy na gontu ma lu ma sama jëkkër moo ko jox ba pare daf ma jox ba di ko boole ak yéene kon kooku mbiram dama ciy def lu ma mën ak lu ma mënul lu ma ko defal jar na ko ko. nit ku baax la nit man aw ma xarit aw ma àndandoo sama jëkkër mooy sama xarit. wax nga ci bëgg gi nga bëgg Serigne Touba. waaw ah, dama bëgg Serigne Touba. sa yaay di màggal si dem ba nekk magam jëmm di màggal si man am naa doon sax ñu war ma ngénte bu ñu nee suba la màggal dama ëpp sama lii ñoo ngénte Touba ah ñun ay murid lañu. dañ ci juddu yaru ci naagu ci mais sëñ Abdoulaye mooy sama féete waaw. Euh, merci beaucoup ñun ñu ngi lay daal di jaajëfal di xam nekk li nga xam ne lu duuf ci nag bi xajul ci cin li dañuy daal di bàyyi ba suba comme ko waxee ñu xaarandi surprise bi. jàmm baax kontaan naa maa ngi jégalu si baat bu dee ba dama sotti. waaw merci ñu ngi ñoo ngi toog ak ñi des Amazones de Ngoye Fall soxna si tur bi naka la. waaw salaamaaleykum mbooloo mi nuyu naa leen yéen ñëpp tur bi Fatou. Sikone la Fatou Sikone dëkk Rufisque ànd ak euh, Daba Ndiaye Koundé nekk ci les Amazones da Ngoy Fall groupe Kaay Baax bu Amazone Ngoy Fall. pourquoi les Amazones la moo waral loolu. waaw groupe Kaay Baax dañu tijji plus trente cinq groupes bu Kaay Baax am na partout dans le monde surtout ci euh, France Luxembourg fu ne am na Gambie fépp am léegi bañ ci bañ ci duggee euh, groupe bu mag yi bari ba mu baree mu ne il faut ñu def les amazones parce que ñoom ñoo nekk di organiser di def di dindi macha allah bu soppee Ngoy Fall macha allah. waa ngeen taamu soxna soppee Ngoy Fall. waaw Ngoy Fall dafa doon koo xam ne jigéen ju jàmbaare jigéen ju am pëms macha allah yàgg li dimbali ay nit yàgg def social macha allah. ñu gis ko bëgg ko di ko bëgg gis ci télé yi waaw yàlla dogal mu jël suñu euh, yaay suñu tata suñu mag suñu lépp macha allah mu nekk présidente nationale internationale léegi bi ñu defee noonu moom tam mu dugal ñu ci te daf ñoo yàggoon neex loolu moom moo tax mu dugg ci. maintenant la mooy doon seen taxawaay tey si bis si jour magal bi. waa jouru màggal gi euh, euh, fu mu toll nii ñëwagul suba la màggal gi mais macha allah ñu ngi fi démb ba léegi démb ba quatre heures du matin euh, la ñu pare li ñuy def te pare wuñ ko sax dañ ko dagg dem mu ngi jógee Rufisque Rufisque lañ dugg jóge biñ ñëwee ñu ngi duggee foofu suñu oto ñu ngi fa duggee ay seize heures ñëw ex fi dix neuf heures biñ fi egsee dix neuf heures après ñu ñëw sangu nekk ci liggéey bi boobu ba léegi waaw léegi tey tamit tey tamit ñu nekkaat ci liggéey bi suba mooy rawati ndax am nañ ay uniforme euh, matin am que euh, au nekk ci liggéey bi lépp loo xamante ne servi la lépp loo xamante ne jox lekk la dalal la mu nekk ci macha allah lool la ñuy def. est-ce que am benn différence entre les Amazones ak les groupes Kayba wala amul benn différence. waa les Amazones. ak euh, groupe Kaay Baax les groupe Kaay Baax mooy mag ñi maire yi góor ñi jigéen ñi ñëpp si lañ bokk mais euh, terewul ñu jël ay xale yoo xam ne yu am pënt yu yu sawar macha allah ndaxte boo gisee ndaje il faut mu am ñuy dalalaate ak ñuy joxe lekk ak ñuy teeru gan yi macha allah loolu moom moo tax mu def groupe Amazone da ngoy faal ndaxte defoon nañ conférence. ci koor gi bañ ko defee kiñ fat euh, les amazones ñoo ñoo soloon vert orange yi ñoo doon dalal gan yi loolu doon teg seen place ba tey jii ñu nekk ci boobu ba léegi ñu ànd seeg suñu yaay suñu lépp muy ajaratu Ngoy Fall. ñoo ngi lay gërëm bu maa ngi leen di sant leen gërëm yéen ñëpp. waa sëñ bi ñu ngi leen di fay. maam Bousso Dieng la. maanaam taxawaay si groupe des waaw ginnaaw ba ma nuyoo nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn yéen ñëpp nuyu naa leen ziar leen bu wër waaw dañ fi ñëwoon tey kon nu koy la présidente Fatou Sikone waxee macha allah ñun dañu nekk ñoo xam ne ay ndaw yoo xam ne ñun ñooy les amazones da ngoy faal waaw ñoo xam ne tey jii tey dañuy ñëw incha allah pour taaral ko gisal lépp loo xam ne kon nu ko la présidente waxee lépp loo xam ne wàllu taxawu la dalal gan yi berne leen ba ñu kontaan ñun ci loolu la ñuy dox waaw lépp rek incha allah bëgg bis bi taaru bis bi réussir waaw loolu mooy suñu taxawaay fii ñu ànd seex suñu maman Daba Ndiaye Koundé moom mi nga xam ne moo ñu tax ñu xam maman Ngoy Fall moo ñu dugal si groupe bi ak yëpp ñun ñëpp ñu nekk ci. ñaar ñaar personne ngeen yéen. pour les Amazones Les Amazones, Masha'Allah, plus de 110 ans. Plus de 110 personnes. 110 personnes, mais maanaam da ngeen di liggéeyal si gratuite wala après ngay fay leen bokkal ay millions jox yokk leen ngeen di bàyyi. <laughs> ah Masha'Allah sant yàlla rek. sant yàlla dafa am côté yoo xam ne moom mënu ma ci wax franchement parler waaye lépp lu ñu def dañ ko def te yàlla tax ah lépp lu ñuy def. Babou Laye président président moom. Ah, président moom mën na si demee. moom du nangu si noonu. mais si da waa ñu ngi koy nuyu au suñu papa Asia Touré macha allah ndax def naa ne ñoo bokk li ñu bëgg ñoo nekk ca pale ba macha allah euh, moo tax suñu papa la suñu lépp la macha allah euh, les Amazones kenn fayu bëgg la rek bëgg yëg moo koy fay macha allah. moom moo tax ñu nekk ci boobu ba léegi di liggéey di def di dindi mais balaa ngay dugg les Amazones wala ngay dugg soppeekaay baax da ngay da ngay am carte de membre carte de membre bi mu ngi à coûte cinq mille francs léegi dañ koy def si place su de membre bi léegi defar ci ay carte de membre ku si ne nga joxe sa photo ñu defal la sa tour sa sant lépp nga am sa carte de membre loolu mooy les Amazones parce que tey maman Ngoy Fall mënoon na yëkkati ku nekk 5000 francs jëndal la mais loo bëgg da ci def sa ñaq moom moo tax léegi ba tax na luñ ci fekk rek ñu xam ne loolu la mais fu mu toll ni fayuñu ñu joxuñu ñu wax fa dëgg yàlla bëgg rek moo am solo loolu la. waxoon waxoo piégé xam nga dina lay nuyu. <laughs> <laughs> tur bi naka la. Adi ah, Fall Adi Fall. Adi hmm. Fall yéen des Amazones est-ce que ngeen di organiser lii di gàmmu wala gàmmu gi ak bu ngeen koy organiser fan la. maa ngi lay nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal di leen jaajëfal yéen tamit sonn ngeen trop ndax boobu ba léegi yéen a ngi ci liggéey bi yàlla daa def na nga mënu maa wax ndax sama mag daa wax ak buso fas ko ne ak buso bu ñu waxee rek amatuma dara lu may wax mais maa ngi leen di sant di leen gërëm. di sant ñu fi nekk ñëpp. fan la. gi ndindi la. gàmm gi macha allah. Euh, Ngoy Fall da daan def euh, comme juru màggal gàmmu Tiwaawan wala wala fépp la gàmmoo juddu yonent bi léegi da ko bàyyi doxal ko ba ñu jóge ci gàmm yooyu mu soog ko def buntu këram chaque année foofu la koy def léegi bii yoon dafa bëgg nit ñi dem si seen gàmm ba ñu jóge ca ñu soog def gàmm gi foofu. day day bàyyi ba ñuy gàmm ba ñu ba ñibbisi ba mu def gàmm boppam. waaw mu def gàmm bi mu waroon def bi nga xamante ne nit ñi gàmm lañ cay dem ku ci nekk yaa xam fa ngay gàmmoo dafa bëgg nit ñi ñëpp njabootam am na ay tiijaan xaadir laayeen dafa bëgg gàmm yooyu bu paasee mu daal di def benn gàmm mu euh, muy guddi yonente bi. ci buntu kër maanaam Dakar fii wala. waaw Dakar Mamel macha allah fa la koy langue chaque année macha allah. bernde yi nekk fa macha allah comme ni ngeen gis fii rek moom moo fay am. sama cameraman moo pis léegi benn question ne les amazones ñaar célibataire la. célibataire yi bari na. moo pas marié yi moom marié yi benn benn la moom kii marié la. kii célibataire kii célibataire. Mhm. présidente célibataire yi waaw. <laughs> ah. kii marié la. Mhm. jërëjëf balaa déwén yéen ngeen yàlla ngeen nekk ay mari amiin